soxna si maa ngi lay nuyu. waxal bu baax. waxal bu baax. Ah, yow la waa ji yegg ci sa kaw avant moo yegg ca kaw nan la def ba dugal la ci néeg bi ak nan nga def ba wuyu waa ji lan la la wax. nee na nee ma ma raxas kaas bi. waaw pare ah, doo néeg bi ah, mu sim sama sama tubéy bi ah ah kaw gaañ ma. lu tax yuuxoo. yuuxu ma de. lu tax yuuxoo bi mu lay gaañ nga woote pour nit ñi waa kër gi génn. moom ah moom daa daawa mu ne ne ma ne moom ne moom ma wax kenn ma wax kenn kër gi ah ne moom jaa dama dama seen kër toog fa ah kenn. ah mu kaame kaame nga ñëwaat. laataa loolu dafa laa woone la lan kaay raxasal ma ay bi nga ñëwee di lan la la wax. amaa wax mu tuuf sa bi xa lal kaw gaañ ma. d'accord mi ngi la koy door a def wala daana ko def wala bii mooy première fois. tey. ma ne mësu la koo def mi ngi la koy door a def. waaw dama koy def kay. ma ne ndax mi ngi la koy door a def wala daana la ko def benn yoon la la ko def wala ñaar yoon wala benn ñaata yoon la la ko def. ñetti yoon. ñetti yoon. waaw lu tax ñetti yoon yëpp waxoo ko sa yaay. moom bi daa wax daa ma wax kenn sama yaay ma ko wax. moo ko li may laaj mooy ndax keroog mooy premier jour bi mu la ko def wala defoon na la ko avant. démb la. la ko def wala ñaar yoon. benn yoon benn yoon. d'accord nan ko comprendre dafa tiit te dafa dër te xamul elle est innocente ba pare dafa dër nee na benn yoon la ko def ne ko bul yuuxu boo yuuxoo defer yooyu xam naa rek comme gars yi bul bul la def dara ah ante nan mako indil nan mako indil parce que tubaab preuve la bëgg même buñ ko dee fulate ñu fulate ko parce que Dakar Buzz bu duggé ci benn bi daf koy top mu leer mais dal ñi ngi ñaan yoon def liggéeyam ki xalé la 11 ans la am té wax dëgg yalla xalé la muy lo xamné lu doy war la. ji bi kon gisoo ma. sol nii sol lii ak set bii démb ba guddi lii nii silib baa ngi nii bii la soloon démb man maa ko ubbi tànkaam ak sama wujju peccar go ñu ubbi ko nii tànkaam féeti ay deret deret baa ngi nii kon lu may wax rek moom moo ko soo ko laajee xam naa démb la ko da ko yàgg a xemmeem xam naa démb la la soo ko am occasion dugg ko si biir néeg bi naa dem kenn nekku si kër gi xew dafa amoon si koñ bi moo tax mu nekkoon xaam profito def ko ba si ñëwee kii nogay mu ñëwee xam naa si la génnee maam jaara mu génn néeg bi ba nogay ñëwee si la génnee maam jaara mu génn bi ndax xam naa démb dafa xool ne kenn nekku fa xew mi xew xew baa ngi si koñ bi mu ne ko xale yëpp ngi foofu xaaral ma xool kër kenn nekku fi mu def lu muy def noonu tamit xam ne ngi nii fóotul ko def ma dara démb ba tey mi laa fanaanoo jooy ba ba set sonal sama doom sonal sama àdduna yàq sama àdduna sama doom mënoon na ko defee feneen nag fu dul sama doom. Eh. massa massa bul jooy bul eh, li ci war lépp yoon dana ko def massa loolu lay métti fi ne nii. sama biir. sa kanam mooy metti dégg nga nee na kanamam mooy metti ñi ngi ñaan daal yoon def liggéeyam te ak justice bu Sénégal wóolu na leen am nañ ci ñoom confiance ni nañ ci liggéey liggéey bu am solo te ñu xool fu dëgg féete ñu ngi faa ñaaxaat njaboot gi daal ñu gën a téye xale yi parce que jamono bi jaxasoo na doo xam bul nangu ko uuf sa doom bul nangu ku may sa doom juróom bul nangu ku yónni sa doom bay ba sax ñu ne da ngaa bon ku woo sa doom kaa ma yónni ko ne ko demul ku mën a doon ku woo sa doom kaay ma yónni la nee ko demul kaay may leen tàngal nee bëgguma kaa jël sarax nee ko jëlunu parce que jamono bi moo tollu foofu sa doom bu mu jëli sarax bu mu dem fenn man boog loolu laay wax boog man de samay doom jëli wunu sarax ku leen yónni may leen bu leen dem kaay jël tàngal may la bëggu bul jël kaa ma yóbbaale la nga ne non non parce que jamono bi dafa lu nga daawul dégg ngay dégg ñu ngi ñaan nag yoon def liggéeyam euh, fii la ñëwoon ci yëmbal buun topp li nga xam ne moom la ñu sox muy cas de viol bi ñu ngi ñaan yàlla def liggéeyam ak Dakar Buzz ñi ngi koy topp di xaaral itam beneen côté bi nga xam ne ñoom ñooy côté waa ji buñ mënee tam woonu ñu ma tam ñoom ñu leeral ci 78 601 11 11 parce que Dakar Buzz may wax rek benn lay du pàkk ngi xaar beneen côté bi bu dee ñoom it dañ leen a tuumaal dëgg laam du dëgg bu nu woowee ci 78 601 11 11 fu nekk ma fekk leen fa ñoom it ñu wax seen contribution xalaat lan la ci lii ñoo xam ne moom lañ teg seen kaw yàlla yàlla leeral yëpp jërëjëf